jàpp na ne xiifal lu mën a indi lor la. waaw grève de moom je pense que moom c'est pour actuellement pays bu ñu nekk nii parce que coow coow yu bëri na encore euh, man je pense que nit mën na defal tout parce que grève dafa nekk loo xam ne c'est pas sûr quoi wóorul. ni mu mënee indi lor noonu la diine teree waaye. lu mën a jur ndam la itam. lekk ak naan ak ay yooyu yëpp dund sax doroo ko faale astama loolu yooyu ay ay ay ay tolluwaay la ci xeex bi ngay xeex bon maintenant est-ce que nit ñi d'accord nañ ci wala d'accord ci man nit ki boo jëlee sa décision ne lii laay def yow yaa xam li tax nga nga koy def parce que dund nag neex na dund neex na wér-gu-yaram it neex na boo demee ba teg ko fële. yaakaar naa li tax nga def ko ñor na la si ñenn ñi grève de la faim mënta wéy te am na neneen nu nu mën a xeexee conséquence yu ne mën na see am nit ki sooy eh, waxtu doléance mbaa nga bëgg pour nit ñi répondre la je pense que mën nga mën ko defee neneen lu grève de la faim parce que grève de la faim newul luy continuer ñeneen ñi jàpp ni su nit eggee ba ci xiifal mën naa tekki ni amatul beneen pexe soo amee lu la naqari da ngay contester nga wax ko ñu dégg ko wala nga bind ko ñu liir ko su fekkee dafa nekk da nga nekk ci benn Euh, jàmmaarloo ka ngay jàmmaarlool ëpp lay pexe yooyu pexe bi nga am nga yaakaar ne yaa ko moom te kenn mënu ko tere moom la ñuy wooyee nii grève de la fin mooy xiifal sa bopp ndax ñu dégg la ñii ndax ñu yërëm leen lii ndax ñu ñu ñu dañ leen a fàtte jamono ji bëri na lu ñuy dégg xiifal bu ñu sukkandikoo ci cas bu taskati xibaar bii di Pape Alé Niang Ousmane Sonko ak ñenn si ñi mu àndal mu nekk sujet boo xam ne sociologue yi nga xam ne jéem nañu waxtaan ak ñoom dafa mel nii dañ koy daw